sëñ Bay austurgam mooy mm, jëmm ji yàlla baaxe la ku yàlla dimbali te daa mel ne nit ki yàlla dimbali ci ndawam la yàlla di la ko yàlla di préparé ndax euh, euh, ci askan wi mu bokk muy askanu Njaga Fatim Jaañ day askan woo xam ne ñëpp ay tànneef lañu waaye nag mas naa wax ne moom moom mooy seen mooy seen tànneefi tànneef loolu ku ne mën na ko wax ndax yàlla moo ko ko jox mu wane ko jëfe ko ba jóge fi ñi nga xam ne askanu Mbàkke ñépp xam nañ ne Mbàkke maaram ñëpp a baax waaye kenn ko xam ne Sëriñ fu ñu teg waa Mbàkke Sëriñ Tuubaa moo tax kon mën naa wax ne njaañ njaañin ca njëkk fa ba tey suq nekku ci ñëpp ay tànneef lañu waaye kenn ko nga xam ne ci Sëriñ Mbay Jaañ ci la ndimbal li feeñe ba tey fii njaañ ak àgg mu àgg fa waaye ba tey lii waa njaañeen am ñu am ko loolu li ma la ciy dexal tegtal mooy sëñ bay way juróom daf ko yóbboon mu ñaanal ko bi mu ñëwee way juróom jàngal ko ba mu sori mu laxas génn dem wuti xam-xam jaar fi doomi soxna yëpp jaar jaar na fa bare bare ba mag mu mujj jaamal nga xam ne jamono jooja looy mën a jàng te dama ko jaamal dañuy jàpp ne fa moo dal mook sëñ Moussa Sakir mii sëñ ci daaree kokki ñoom ñaar ñoo bokkoon benn lal bu naan fanaan jaamal kon xam nga wàccaay yu ma deex am na euh, yàlla boole leen foofu ba mu demee ba jàng xam-xam ba matal ci la dellusi nag taxawal daara njaañ daara ji njaañ bi mu taxawal daara ji itam fekkoon na fi magam ñuy wax sëñ Ibrahima Jaañ waaye wan la tawfeex ji suñu borom defal ndax mm, doomi soxna ju xam lam war a xam mel na mu war a mel am mbooloo ma war a am am ba noppi nangu warul topp sa mag loolu tawfiix la kon wane ne honnêteté sëñ Bay Jaañ ak mbaaxam ak waayef ne boo ko ne bu ñëwee day beru ndax magam ñu fekkoon yorutoon daara bu fekkee yaa yor xam yor daara ba noppi nag di doon soxna nu nga ñu topp koo xam ne yorutoon daara yow nga nangu nga ànd ak sa mbooloo di ko bàyyi ay xoolam di ko jàngale loolu kenn ku ne xam ne ku defarul mënu ko waaye magam jooju it nag ko gore woon la dafa wëlbatu foofu ay doomam yëpp jëbbal ko comme jur rek sëñ bay moy serigne mo len jangal yar len mu nek ab sëriñam kon xol xalo bobu ànd leen ba rafet mu ak njabotuk serigne tuwaa gep ku fi nek ànd naag yow liggey la ba am sa ngeureum tamale ko serigne fallu ndax bimu fi ñëw bimu muy dal daal bu sëñ fallu fi nek serigne Modou Moussa mi ngi fi woon waaye moom sëñ fallu loxo yàlla boole serigne fallu daana ñëw di ko fekk seedoo ko ay ba tay si iblat non. bu ngeen demee ci kër gu mag da nga fekk néeg boo xam ne néeg sëñ Ibrahima lay doon sëñ Abdou Khadir noonu sëñ Moutala noonu sëñ Saliou kon ku fi mas a toog rek jaxasoo naa ak yow waaye lam lay liggéeyal dana dana liggéey liggéeyal boo xam ne ngërëmam da nga ko xosee ay yoon yoon ba dana la doon sax di yëgatu waaye ñëw di ko ganesi loolu mooy taxawaayam ci diggante nag waa kër sëñ Tuubaa waaye alxuraan tam mu liggéey ci loo xam ne tey booba njaañ moom rek moo fi yor daara tund wi wéet ku fi am sa doom moom nga ko indi ñoom ñëpp moo leen jàngal moo leen yar moo leen defar booba kenn ku xam ne njàmbur booba maanaam xam-xam amu fi woon dafay tumaranke woon maanaam ay xaw nu ma waxee ay ceeb rek moo fi bari woon waaw waaye nag moom ci moom la defar tàmbale defar tàmbale moo tax itam fii ne ñëpp ñam fekkoon ami sëriñ sax tudd nañ ko ay doom jëbal ko seen njaboot ba na fi ànd ak moom ci fan ànd koo xam ne ànduñ ko sax seen sëriñ mën jëbal kon loolu cër bu ko yàlla joxoon la mu liggéey ko ba mu mat taxawu dëkk bi natt ko dëkk bi ba mën na sax ne maam Ndiaga Fadi da koo sanc waaye lu fi nekk rek suñu bay ko def ba tey fii waa dëkk bi xamul ku dul sëñ bay fii ne boo duggoon dëkk bi wax da ngay defoon sëñ bay moo sanc Njaay kon loolu ab cëram la bu yàlla jox waaye nag tabaxoon ci alxuraan tey meññat moom moo nekk nii nattangoom bi tey bi mën na ko tudde euh, mu ñëwee kokki la sanc waaye lam daan wax naan képp ku may dimbali si ku ma bëgg dimbali sama jaar sama daara ji na nga gaaw dimbali ma balaa sama njaboot gee mag loola daa mel ne suñu borom bi tam da koo rafaatale sëñ bay ndax daara sëñ bay ñi fi jiitu woon ak ñi fi jaaroon defe naa ne tu ma bu ne xam nañ ko fi bu mu ñëwee am na loo xam fekk ko kon bu nee bañ jabat gu butugaat di ko taxaw day mel ne kàddu sëñ sëñ bu taxee loolu wax yoon moo dellu si man moom sama lépp ci loo xam ne nekk moom a jàngale joon bu mu ñëwee moom saytu la daara ji ba na leen ci loolu laa nekk ci ay ndigalam génn gu ko yàlla na fi yàlla yàggal ci eggal yéenam ci suñuy jëmm waaye nuy suñu yaakaar ci jëmam dara bañ koy tas barke sëñ Bamba waaw Njaañ ak sëñ Tuubaa moom damay wax ne daanaka euh, lépp Njaañ day sëñ Tuubaa dégg nga ndax sëriñ bi laata muy taxawal yoonu murit moom booba la amoon relation ak waa Njaañ laas nga am lu pour maanaam lu yàgg la xaarul ba sëñ bi woote wàññaan doon jaxasoo suñu tool yi sëñ bi woote yoon murid moom boobu la jaxasoo woon ak wàññaan wàññaan wutuwul sëñ pour jaxasoo ñoom sëñ bi moo wut si wàññaan pour jaxasoo ñoom loolu taw fii sa wàññaan ndax sëñ moom moo ràññee lépp boobu mi ngi wër ba gis yàlla def mu daj barab bii gis fi li mu fi gis di ko fi indi boobu waaye juróom moo dëkkoon Pataar taawam ba sëñ Mbàkke Anta làqu mu bëggoon ko taxaw daal mu woolu sëñ bi poroxaan mu ñëw bi mu ñëwee fekk am na téere bu mu waroon a jàng mu boole ko wenn benn sërif bu nekk fii bi ñuy wax sëriñ sëñ Mouhamadou bi di fi ñëw di sàkku si xam-xam kon li ëndoon njaañ mooy sàkku si xam-xam kon xam bokk na ci li boole sëñ Tuubaa ak njaañ ba tax na njaañ la sëñ Tuubaa mujjee jàngee xam-xam ci zahir sëñ Mouhamadou Yadali moo ko jàngal njaañ mu jóge fi dem Mbàkke Kajoor at la fa def moom waa faatu moom mu daa déwén sa mu daa taxawal yoon mu rek bo gannaaw booba léegi jëguñ fukk kon Njaañ am na taw fii jooju sëñ bi sàkku xam-xam moo ko loolu war na ëllëg Njaañ fu mën a àgg ci xam-xam rek maanaam wërta yem kenn ndax suñu tam léppam loo gis rek ab junj la euh, bi mu defee loolu euh, mu jaxasoog waa Njaañ gis ci ñoom seetlu goo xam ne tax na bi magam jooju làqoo Mamour Ansel ne nañ ko yóbbu Njaañ bi ñu ko indee Njaañ rob ko fi mi ci armée yi muy sëñ Mbàkke Anta wax naa ne bi ñu koy denc daa siisu ñaari yoon ñu yëkkati mu diis at mu ko ñu teg ba mu yàgg mu woyof ñu yëkkatiwaat mu diis ba mu yàgg mu woyofaat ba ci yoon ñetteel rek mu doo mu doog mu doog mu doog mu doog mu doog woyof ñu la koy rob wax nañ ne sëñ bi man fa koy wax njaareem daal di wax ndax xam ngeen xamoon ngeen Mbàkke Anta. siisam googu mu siisoon lu ko waral booba maam Cheikh Anta taxoon mu doon ko wax borom Gaawaan ndax maam Cheikh Anta suñu bakkan ñoo ko rek mi ngi bëgg wane nit ñi ànd ak moom dayo bi am ak ñi ànd ak ñoom lu ñu baax a baax ñu ko suñu bakkan ànd ak ñu ne ko ah, mbàkkee xamu ko loolu nettal nañ ko moom la mu ne ko siis bu njëkk ga dafa waxoon boromam ne ko dama bëgg barab bii may dugg bala maa dugg ci biir ku fekk nañ ko jéggal da ko nangul ko dañ ko nangulé motax mu bi ngeen ba bëgg a dugal mu diisaat si su ñaaral googu mu ñu ñu xam ngeen lu ko waral ñu ko jégal mu ne dafa ñaanaat borom ne ko ba ba at nay tukk moo fekk siwaat ko jégal borom moom ko mu doog a dugg daana kon barab booba képp ku suñu mbàkkante fekk jégal nañ la ku ko fekk dana la jégal daal waaye suñu mbàkkante moom li baax baax baax agul am si am antami coq waaw waaw ndax ànd gi ànd suñu daal ba liggéey ko am ngërëmam <laughs> boobu loolu dong la bëggoon a jàngale te loolu xel mën na ko nangu ndax ñi ànd ak yonent bi da tax ñu gën ñu leen jiitu woon ci ay yonent mooy ànd gi ànd yonent bi doon ba liggéeyal kon loolu bokk na tawféex njaay man si waan maam suñu bakkantam maam nga doon si moom ne ko denc fenn fu dul njaay waaye tax ma taamu njaay ba njaay am tawféex jooju kon bokk na li boole suñu Tuubaa ak njaay euh, mu bokkat ci ajjuma fu mu ko mas fekk njaay la ko daan jullee si ci jumaa njaay ji moo tax li àdduna yaatu yaatu njaañ rek lañ xam jumaa joo xam ne Sëriñ Tuubaa jullee na fa àjjuma la ko waral mooy nekkoon na fi am jot am temps di di di di sàkku xam-xam nekk ci nekk ci liberté boppam te moom fu nekk ci lépp lu xam bëgg da koy def fu jote mu ñëw julli si jumaa njaañ ji léegi nag gannaaw bi Mbàkke Kajoor xam nga jumaa amu fa jumaa bëriwul woon bi mu nekkee Ndar amoon na jumaa waaye booba prisonnier la amul liberté moo tax bi mu nekkee njaaram it ba tey jumaa nga fa wo ba mu tabaloo jumaa jumaa ji noppi na ci kanamam julli na ci jumaa ji waaye ndax booba ba tey dafa nekkoon assur jumaa Tuubaa moom fekk ko ci saayir Njaañ am na tax fi Sëriñ Tuubaa ni moom dong lañ xam fi jumaam joo xam ne Sëriñ Tuubaa na fi jumaa loolu lépp relation loo xam ne dox na diggante Sëriñ Tuubaa ak Njaañ laata yoon mu di taxaw bi yoon mu di taxawee nag ba mu dem ci géej gi ba dellu si ba nekk njaareem amul jot pour ñëw njaay waaye daana bàyyi xel njaay ba am na benn sërif bu fu nekk ñu ko wax sërif Mouhamadou Abdoulaye muy nitu yàlla koo xam ne naaru gànnaar ku am ciri ci boromam ku naar yi bàyyi xel ndax naar yi kuñ gëm ba nga jaral leen jóge gànnaar di seer sa bàmmeel ba nit faatu njël gànnaar ñëw di ko def sa bàmmeel am na fu ñu la teg te kooku wëlelu sëñ tuwaala woon mu sëñ Tuubaa ba mu nekkee gànnaar gana ji na ko bi sëñ Tuubaa ñibbisee ba nekk njaarim mu fekk ko fa gana ko ba ko sëñ Tuubaa di yeewi la ko joxoon ndigal naka na jaar jaay fekk bi ko sëñ bi dalalee maam Cheikh Fall la ko boole moo ko doon toppatoo bi mu yeewi ko ba génn dajeeg maam Cheikh Fall ne ko nekk ko sëñ bi daf maa yeewi waaye def na ma naa jaar njaay mu ne ko tee ngaa jaar fii dem gànnaar mu ne ko waaw moom laa bëggoon waaye ndigal ma sëñ bi jox ma tax ma bëgg dem njaañ du ma fa yàgg bu ma fa jógee doo ko doo ko dem gànnaar te moom booba yàlla mayoon na ko lépp lu bëgg a xew daf koy xam waaye ak génnam àdduna dañ ko lim dañ ko lëm am na lu ko sëñ bi jox ne ba bala koy ubbi na dem ba Njaañ as ëmb bi mu ñëwee ba Njaañ wàcc gërëmam gi ci nga doon xam ne fii mooy sa suuf bu mu xoolee li ko sëñ bi jox nekk yi ko war a waajal ca la nekk moo tax mu yéen sëñ Tuubaa ñett fan dafa def wàccub liggéey ñu denc ko fi mu toll ñu loolu yëpp ñu xam ne kon sëñ bi min xablu mooy avant amoon na relation ak Njaañ waaye min baxatu tam nag mel na ne bàyyi na xel waa Njaañ ba tax nitu yàlla ko toll noonu bu di ko sédd Njaañ di ko fa yebal ban di ko fa denc loolu moo xam lan ko nam yàlla na yàlla taal si seen barke ci gàttal rek ndax suñu doom dara am tuuti waaw ci bokk na ci tam li gën a firndeel cër bi suñu tubaab séddoo Njaañ moo dinaa koy wax ñun suñu maam ay tijaan nag moom wéru tijaan nag ñor am na ñuy wax wérdu xaadir waaye moom wéru tijaan moo ci gën a siiw waaye tey fii ne bi sëñ bi wootee ñëpp lañ ko wuy kon loolu wan bi li fi nekkoon bi fi jaaree da ko tànn da ko tànn moom mu képp kum jur ñëw nga jaay tàmbali ak sëñ Modou Moustapha ba ci Mourtala te dama am na lu Sëriñ Tuubaa def alxuraan ji nag moom Sëriñ Tuubaa fi la ko fekk waaye daf koo barkeelal kon loolu laa amoon ci lu ma ci wax xam naa comme jotaay bi xam na te mel na ne dañu ma soxla ñu ngi naan yàlla yàlla na ci defal ci kàddu gi ak leer ak dégg te eh, dimbalu ñu itam ba eh, li nu yéene ñu ànd ko jullit ñi ba defal ko borom ci kaw suuf ci làkk ci ngërëm